waraate et puis bi yàgg na ko door ca Maïmouna Ndour Faye euh, dem naka nga jàngatee la sortie de euh, Cheikh Yérim Seck. waaw man de fi mu toll benn problème la am bin bin bin. <laughs> <laughs> non ba xam oh, parfois da ngay xëy benn journée benn phrase la benn way di ñëw sa xel. mais bin <laughs> bin bin bin man bin bin moo nekk suma xel quoi xam naa ne dinañ ne. célibataire buy xalaat ay bin bin parce que man li ma gën a retenir mooy ay bin bin bin bin bin après j'ai dit waa xam naa moo ngi noonu daal xam nga olof Njaay dafa ne. kuy kuy woddoo làmmiñ su noppee rafle kuy woddoo làmmiñ mhm. su su su noppee rafle parce que man bëgguma di débasser ay nit sax. nit ku nekk di nga am. sa gis-gis wala sa sa opinion moi j'ai rien contre euh, sa personne parce que euh, homme public la euh, dafa doon jël ay posture ak ay position rawatina livre bi mujjee bind vous vous rappelez man biñ ma ci laajee dama ne son livre là c'est un livre boo xam ni c'est sur commande parce que avait écrit un bouquin boo xam ni si vous vous rappelez. muy diin Ousmane Sonko ni moom dañ ko jàppoon xaw ma lan sur la corniche waaw mais euh, moom ci loolu la nekkoon moom moo ko waxoon donc finalement euh, yàlla dogal na moom kam doon diin la sénégalais ne yow et puis ça avait soulevé un débat parce que euh, yow mënuñu la jiin lu jëm ci wàllu yàqataan ngay dem di jiin keneen yàqataan xam nga et ñun am nañ ay woykat quoi ñu am nañ ñuy tàgg yonent bi suñu maam Alaaji Maalik li mu bind ci yonent bi doy na li keneen du fi bind si loolu suñu maam Cheikh Ahmad Bamba la mu bind ci yonent ñu caricaturé di ci waxee affaire yi maam Cheikh loolu jafandukaay la rek pour wut benn genre buntu xam nga dafa am ñoo xam dañu nekk c'est de faiseurs de malin quoi teg xel et puis. kon daa bëgg ñëwaat daal. loolu laa la bëgg wax moo tax c'est que doo ma dégg. waaw man maa bëgg nga may dégg. waaw naa la kii maanaam kuy woddoo làmmiñ bu noppee raflee donc yii yëpp ay porox ndoolu la ay genre buntu toog ci télé bi di wax ay bin bin bin bin xamali ma la c'est <laughs> ñu lay génneel la nga waxoon daaw ak sa waxu ren gis nga yàlla moo pare et puis le ridicule ne tue am na nga xam ne il sa se ñaari terre laa la il devrait non seulement sa taire et de aussi sa taire il devrait se taire T E R R E R il devrait se taire aussi T A I waruñ wax parce que yow loo wax yàlla weddi ko loo wax yàlla dindi ko yaa toog nga ne Sonko du ko nekk ku jege ci Sonko du ko nekk Pastef tas na ex yow foofu yàlla pare na Macky Sall sax bi fi bëggoon jële Sonko ak Diomaye yàlla def na Sonko ak Diomaye jëlee nañ ko fi maintenant am na ñoo xamante nag si seen tur lañ doon lañ doon job c' est des maîtres chanteurs ñoo xam ne ci loolu lañ doon lañ doon liggéey lool la rek ah et puis man j'aime pas wax ci ci ci ay nit quoi ça ne m'intéresse pas quoi sincèrement et puis. Oui. Euh, euh sénégalais ne sont pas fous. Oui. sénégalais xam nañ kan moo nekk si dans la manipulation xam nañ koo xamante ni ci yooyu ngay job quoi donc moo tax euh, ku mu neex nag mën nga dem taq rajo nga wax mais les sénégalais. ils sont très conscients très intelligents et xam nañ entre le vrai et le faux ils ont cet esprit de discernement. ok mais par rapport ak euh, jaar jaar son son son excellence le président euh, <coughs> Bassirou Diomaye Diakhar Faye peut-être moom jàpp na ne mooy ki nga xam ne moo gën a néew jaar-jaar à part impôt domaine mos occupé yenn. c'est pas responsabilité aussi. moom ban jaar-jaar la am moom. tiens nee na c'est un analyste politique. quel journaliste la def Jeune Afrique et loolu mooy jaar jaaram ah. dama nga laaj nit ñi jaar jaaram la xawal ah. xam nga nangu dogal yàlla moo yor ay mbiram ak ay mbóotam si vous rappelez Diomaye sa première sortie moi j'avais dafa génn si kaso il a vécu pendant une année ci ay difficultés ñu teg ko si kaso psychologiquement rek il était affaibli mhm. mu gëm yàlla bàyyi njabootam bàyyi ay soxnaam dafa génn ci kaso bi rek baat campagne rek gañe juróom-benni xam ñu indi ko Radisson la xaw ma émotion yi mu am pression bi mu am même bi mu waxee sax nga dégg matul président amul jëm bi ni mu waxee la carrure le charisme yooyu lañ doon wax non <laughs> c'est ce qu'il disait non oui. vous avez entendu le discours de Diomaye à Paris ci Jeux olympiques yi qu'est-ce que les gens ont c'est le même discours les mêmes éléments les même moo que Diomaye a yooyu la Thomas Sankara defoon Nations Unies mu nekk un discours retentissant est-ce que vous avez lu le discours est-ce que vous avez entendu Diomaye parler. oui avec beaucoup de fermeté. Oui. beaucoup de courage. Oui. et quand di dañ leen war a jàngal lu ñuy waxee ñun soxlawuñu wax bu neex. wax bu neex boo xam ne ay fen la bëgguñu ko ñu noo préfère wax bu dëggantaan bu tegu. bu ma parlez de parcours c'est quoi un parcours parcours boo xam ne yow dañ lay nome amoo benn mérite Abdoulaye Wade gagné na mhm. nga dem ne ki nekk Petrosen parti socialiste la bokk ñu nommé la yeneen yi nga xam ne dañ laa nommé est-ce bu ñu doon fal président ñu dañu xool ko ëpp jàng kon dañuy dem ñu ne nañ dem woo professeur Souleymane Bachir jaañ wala nañ woo keneen mais kii il a un parcours honorable c'est quoi un parcours honorable c'est quelqu'un qui a fait euh, son parcours de Ndiaganiao nekk un jeune dans un village sérère très reculé, reculé ouais. Mmh. face à la précarité ouais. il a fait preuve de résilience et de courage pour arriver à ce niveau nekk doomu baykat di bay di dem di jëndal boppam ay fourniture am c'est un exemple qu'on doit montrer aux jeunes sénégalais montrer que c'est possible montrer qu'on peut changer les choses montrer que boo gëmee dara nekk ci def ci fulla ak fayda boobu yàlla fekk si la montrer que dem na def concours ENAM et il n'a pas échoué jàll si ñaari concours jël benn nekk fa pendant quinze ans ENAM lan lañ fay jàngale lu mu tuddee ENAM. école nationale d'administration. lu tax mu tuddee ko noonu. c'est la où on prépare les hommes d'État. oui c'est c'est à l'ENAM prépare les administrateurs. Abdou Diouf fu mu génne. Mhm. Abdou Diouf la génne. ban parcours la Abdou Diouf am. dafa génn taf préfet gouverneur def ko ministre du plan. ok ENAM bu France la jàngee mook Habib Thiam. Djibo Leyti Ka a eu. ci nguuru Abdou Diouf kese kese six ministères yu bokkul waxtuma nag ci nguuru Ablaye Wade. fu mu génnee fan la génnee. Mhm. ENAM la génn euh, Ousmane Tanor Dieng fu mu génnee. ENAM la génne. wala mhm. Diomaye ENAM la génne. jamaay enaam la génne yërim laaj ko fan la génne ñu may waay. ok mais eh, li wax ci. ëllëgu ba pare yooyu yëpp complexe la quoi cest à li wax ci ëllëgu ñoom idée ñoom gaa yi. Ah, amuñu ëllëg amuñu ëllëg amuñu ëllëg. moom mi sax amul ëllëg. <laughs> c'est-à-dire li ko comprendre sénégalais. waay faluñu jomaay kese de. da ci waroon boole la. non non les sénégalais. n'ont pas seulement élu jomaay. déedéet un problème. xob yu bon yëpp dañ leen witti. ba pare da am ñu ñu weer. mu di alternance générationnelle. non du loolu dama bëgg nga comprendre. Diomaye hmm. Sonko c'était un ouragan politique qui a secoué hmm. l'arbre et quand ça secoue l'arbre les feuilles mortes vont tomber et laisser la place à de nouvelles belles fleurs c'est même les masques sont tombés temps yaa ngi dégg ay médias bi am na problème lan la ñi leen doon tuuf sax nekkatuñ fi ñi leen doon graisser di leen jox ñuy wax nekkatuñ fi les robinets sont coupés moo tax di nga bëri ñu gis ñoo xam ne dinañ jëfaru am ñoo xam ne dinañ weeru ni gejj du élection kese. ñëpp ñi nga xamante ne dañ doon toog fii. mais yow lan la ñuy jëlee LONASE di fay ay nit ñu toog ci TikTok di fen matin midi soir quoi ñu leen jox ay millions sénégalais. ay groupe de presse ñu leen di tuuf xaalisu sénégalais pour faire de la manipulation. pour dox ci sunu maan gis nga Pape Diouf dafa ma amel droit d'auteur ndax loolu man sama langage la xam Pape Diouf daal yaay piano seen maan daa am ñoo xam ne dañoo toogoon rek ñu leen di fay pour ñuy piano maani sénégalais yi di faire de la manipulation d'opinion xam nga li ma la mm-hmm. c'est ces mêmes gens la qui vont revenir pour se donner une nouvelle virginité médiatique ou une virginité politique c'est-à-dire ils léegi ngay dem naan da ngay jafandu si yonent bi mu lan la ñuy jàngal ci yonent bi lan lañ fi jàngal moom ci yonent bi moom. <laughs> Ah, démb de yow ma ne. Eh, wax na ay waxam ma ne Cheikh Omar lu wax si yonent bi demal xool <laughs> Alaaji Malick nga ah, xamante ni dafa tàmbale ci yonent bi balaa ba muy nekk leer. ba niñ koy dencee amul ku ko def. suñu maam Alaaji Malick Xaadimal Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba doomam yëpp mu tuddee leen yonent bi. yow nga toog fi naan ñu ay bin bin problème bin waay monsieur Demba Thioune ñi ñëw nag ci euh, wàllu li nga xam ne rek moo di xibaar euh, bi nga xam ne primature jël na ko ak waa Descos ñu dal di dakkandil euh, lépp lu doon tabax.